mete la kuy mete la kuy à Sèye Mor Diagne ci pôle bi. Thank you. ba ñëpp jël liggéey moom. dañ ko dàq wala Sonko ay communes lan. day wàcc wala ñu wala ñoom ñaar dañu mën a ñëw. wàcc wala jël. xooluma leen de xooluma leen de